bu njëkk bi dañuy dañuy jëlee ceeb bi fii nga xam ni ci ñu ko jaay les fournisseurs yóbbu ko ci magasin yi mooy les magasins du commissariat à la sécurité alimentaire bi nga xam tous les départements am na fa bu fekkee magasin yi fees na ni ñu yóbbu ko ci l'armée ji cantonnement armée fu armée nekk wala fu gendarmerie nekk wala fu police nekk te ñu am hangar donc loolu noonu la ñuy def fu mu nekk nii lii nag bëgg nañu mu am mu euh, euh, maanaam ñu def ko ci toll juróom-ñetti fan ci lu mu bëri bëri bëri juróom-ñetti fan. Si vous ci bu bi ci ci la tambali manam joxé bi jëm parce que tout simplement comité yi nga xamni manam les quartiers wala villages ñu donc fi une semaine dès que mu paré rek ñu commencé manam euh, joxé ndimbal li wax nañ aussi ci ñi nga registre national unique vous borom bourse familiale ak délégation générale protection sociale moo leen defaloon enquête donc gëm nañu en tout cas bu juróom-ñetti fan yi passé bu neexee yàlla daañ ko tàmbali joxe gis ngeen aussi ne armée bi seen camions yi ñi ngi fii armée bi mooy yóbbu maanaam ceeb yi ci euh, maanaam ci caserne yi battrain ak fu caserne armée nekk ñoom ñoo sécuriser gis ngeen aussi gendarmerie, yi gendarme ñoo amee lépp loo xam escorte la escorte ak sécurisation ñoo ko yore police aussi da donc dañuy ligue avec les forces de sécurité et de défense sécurité et défense armée bi la gendarmerie ak la police parce que dañu bëgg mbir mi non seulement mo jaar mais les gens, dal les populations les élus les maires pour que mbir mi nga pas ñëpp ñëpp ci